salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site tv luttetv.com ñu ngi leen di nuyu di leen ziar toogaat ak président des amateurs Doudou Diagne Diécko fas yéene waxtaan ak moom ci tolluwaayu làmb waxtaan ak moom ci arbitre yi nga xamante ni dañoo grève dañoo nekk ci benn grève nekk ci benn werante seen diggante ak CNG bi yaakaar naa ne loolu am na lu mu ci war a mën a wax waaye waxtaan ak moom tamit ci sorte bi nga xamante ne gis nañ ko mu def ko yàggul dara ci problème roi des arènes bi mu wax ci tey mu leer ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu xam position ci wax bi nga xamante ne président Alioune Sarr wax na ko bi mu def conférence de presse waaye dinañ waxtaan ak moom tamit ci sargal bi nga xamante ne waaye ina ko waa jàppoo doon nañ ko ko sargal nekkoon dimanche bi passé fële ci Thiès nekkoon seen première édition gala de lutte bi ñu amaloon ci Thiès dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre Lutte TV point com ñu waxtaan ak moom. maa ngi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Lutte TV di nuyu Sénégal gépp di nuyu njabootu làmb di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci làmb yi rawatina amateur yi ma jiite. amicale des amateurs maa ngi nuyu bureau bi di leen ziare di leen ñaanal gudd fan wér du nuyu membre yëpp du nuyu képp kuy amateur foo munti na ñu lay ñaanal di ñaanal ñi feebar yàlla wéral leen ci barke Seydina Muhammad ñi si kër yeeg ñi si hôpital yeeg ñëpp feebar bu bon bi nga xam ne moo fi dugg tam yàlla nañu yàlla musal si moom ak mboolem mbindeef yàlla musal ñu suñu moom génn si réew mi génn si yeneen réew yëpp ba dem yàlla nañu yàlla musal si feebar boobu si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla defal ñu ñi si prison yi aussi yàlla dimbali leen ñu génn ba dellu seeni i mbokk ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu homme politique yi di nuyu ñëpp di nuyu ministre des sports di nuyu président CNG di nuyu président des ménagers di nuyu président écrit ak école du lutte yi di nuyu bépp association boo xam ne yaa ngi si làmb ji ñu ngi lay nuyu di la sant di la ziare di wax di nuyu aussi association des lutteurs mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu du nuyu ancien gloire yi di nuyu ñëpp daal. nuyu nga ñëpp daal. Mm-hmm. làmb ak fi mu toll dimanche passe wala weekend bi passé ñu gis arbitre yëpp bank seeni loxo daan nañ gis gis amateur mën naa am daan nañ leen gis ñu ñaxtu daan gis mbër ñaxtu daan gis <coughs> ñeneen ak ñeneen ñaxtu promoteur keroog ñu gis arbitre yi di ñaxtu nga gis weekend bi passé amuñu benn arbitre boo xamante ne arbitre nga mbuur gi ma nekkoon ay ay ancien mbër ñoo fa doon arbitre. noo gisee coow loolu. waa coow loolu nag euh, dëgg yàlla samedi ñun ñëpp yeewu journal bi ñuy wax suñu làmb tiitale ko ñun boobu am nañ comité directeur CNG dafa waroon toog réunion ci arène nationale bi ba ñu ñëwee tamit yàlla dogal nga may ma sax may euh, félicité lycée bi nga xam ne dafa nekk Ngeexoox doon visité ci arène nationale bi. ñoom ñëpp élèves yëpp ñëw foofu doon visite si daal sax dañoo bëgg gis président CNG. Hmm. ak membre CNG ñu woo ko président CNG woo bureau bi yëpp comité directeur bi yëpp dem gis xale yi ñaanal leen ñëpp waxtaan ak ñoom sagal leen ñoom ñu laaj ay question ci làmp ñu tontu leen ci làmb. Hmm. loolu muy geste bu rafet ñuy gërëm professeur yi fa ñu àndaloon ak ñëpp. beneen bi nag ba ñu ñëwee toog réunion moom la ñu ubbee. Mm-hmm. président Alioune ne ah am na lu fi xew. Mm-hmm. ñii kat arbitre neen dañuy grève seen président nii seen président wax li nga xam ne moo tax ñuy grève. am na seen président. muy Sitor Ndour. Mm-hmm. mu ne am nañ problème mu ay euh, assurance. léegi li ñuy fayeku dafa tuuti président Alioune Sarr wax naa ak moom. Hmm. wax nañu joxante wax naa ak ñàmme am na lu ñàmme ne d'accord na si am na lu ñàmme lu waxee mu ne wax naa ko ñàmme. Hmm. nee na yàgg nañ ko wax bindal te musuñu ko répondre par écrit waaw ñun tamit jéem nañ si jël kàddu parce que ñun tamit xamal nañ leen kat. Hmm. promoteur dañuy joxe seen xaalis tëgg làmb boo toogee ba 24 heures nga ne làmb lu am. loolu yaa problème hmm. président CNG tamit ne leen ñun dinañ jël suñuy responsabilité comme ñooy jël ngeen seen ñaan naa Sitor pour ñu def combat yi ba altine wala talaata ñu nekk si pour jéem a xool lu ñuy régler problème yooyu hmm. ñoom ñu bañ hmm. woo naa Malick Ngom Ngom mbokk ko moom it ñu bañ loolu ak ñoom def nañ si ñun def nañ si li ñu war a def amuñu si ndax may ñu noonu lañ def voilà loolu laa ñu bëgg a xam mooy est-ce que yoon la tey CNG bi ku ñëw wax sa ñaxtu wax sa naqar ci ñoom mbër yi doon nañ ko def amateurs yi doon nañ ko def ndax yow daan nañ la dégg bu yàgg promoteurs yi daan nañ leen dégg léegi bu ñu demee nag ba arbitre yi nga xam ne ñoo leen gënoon a jege doon leen doon defendre di am lu leen metti ba mu tax ñu banque seeni loxo est-ce que jarul tamit instant bi il est temps gisu gisoo ni war nañoo xoolaat seen taxawaay. non xam nga euh, jiite association walla jiite dara. Hmm. il faut nit ñi doo leen bokk xalaat. ñi dañuy am problème bi ñuy am problème yëpp nag li koy def li koy réglé mooy toog waxtaan. Hmm. il faut CNG toog waxtaan ak arbitre ñu xool seen programme xaalis bi ñu war a am na lañ koy amee waxtaan si assurance yi waxtaan si lépp parce que aussi ñoom it li ñuy kaas seen droit la mm-hmm. ñun tamit amateurs yi amuñu lu gunge leen ñu waxtaan ñu xool solution yi war a am ñu am ko làmb continuer mm-hmm. parce que làmb toll na foo xam ne il y a des problèmes arbitre aussi làmb bu leen ñaanee ñu ne leen le premier ak le trent le 30 ak le premier gérer leen combat ñu ñaan leen ko waroon nañu ko mën a may parce que aussi promoteur duñ fay seen xaalis ba pare làmb ak semaine bi yëpp ñoom ñu nanguwuñu làmb am loolu tamit yaa problème seen droit lañ nekk am nañu cas am nañ droit kaa seeni droit mais dafa am na nit ki tamit lenn li boo ko moomee lenn li say nit a ko moom buñ leen ñaanee njëkk war nañu may voilà ñoom nag ñoom seen njëkk may ñu ñu mais amul problème di façon ñun li ñu waroon def def nañ ko la macha allah. mais président man li ma bëgg a xam mooy CNG bi est-ce que yow gisoo ni war nañu mën a xoolaat seen doxalin parce que mënoo jiite ay nit kuréel gi nga jiite woon ñëpp léegi tourné waat jo jàkkaarloo ak yow di la contre ce que jotul instant bi ñu xoolaat seen toogaay. non xam nga euh, euh, nit ki bu yàlla defee nga jiite da ngay nangu waxtaan. waxtaan buy am coow du am tey CNG bu dee arbitre yi bind nañ leen lettre wala nañ leen tontu par lettre li ngeen bëggoon de ni ngeen ko toppatoo nangam ak nangam wala nangam ak nangam il faut loolu mu am adduna bi nag lépp loo jiitee amul waxtaan day indi ay problème il faut nga nangu ubbi sa bunt ku wax bu même bu la président diw nangam nga bañ a déglu ñiy wax wax yu bon wala ñiy wax pour jaxase la nga bañ leen déglu te nga woo nit ñi waxtaan wax li nga mën bo même bu dee juróomi poñ la nga mën ñaari wax leen ñaari laa mën beneen yoon nga mën beneen beneen yoon ñoom it ñu jël leneen mu jeex loolu lay àdduna bon nga baal ma nag ma jaalee euh, sëñ Abdourahmane Fall Tilaale di ñaan yàlla yàlla yërëm ko yëg nañu léegi ne dafa dafa làqu par accident moom ak soxnaam ak bëkk néegam ak bëkk néegam mm-hmm. xam naa ay taalibeem mu bëri xam naa rakkam sama xarit la mustafa maa ngi koy jaale di ko ay soxnaam di ko jaale Moustapha sama xarit la maa ngi koy jaale bu baax yàlla na ko yàlla yërëm barke Seydina mu si barke bés bu màgg bi weer bu màgg bi kasu rajab mhm. yàlla na ko yàlla teeru yàlla na ko yàlla teeru ak sëriñam sëriñ Touba ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na leen yàlla yërëm ñoom ñëpp képp def asda wala nga jénn àdduna si bësu tey bi yàlla la suñu borom yërëm yërëm ña nga fekki yërëm ña ñu war a ñëw yërëm yàlla moo am yërmande mm-hmm. yàlla na leen yërëm si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi ne la nit ñi il ñu waxtaan xam nga man CNG li ma laan joteeg CNG yëpp mooy dañ leen jox arrêté ñu war ko respecté respecté wuñu mooy article 4 assemblée général réunion ak comité directeur yi mhm. ah di wax ak nit ñi di communiquer loolu laa leen joteeg CNG léegi yow xam nga ne loolu am na comité directeur mu ngi réunion ah. wala loolu amu fi woon waaw léegi man loolu laa leen jot ak CNG. waaw mais yow mi nga xamante ne yaay président des amateurs. Hmm. est-ce que yoon la tamit ay làmb ñuy xaar ay làmb yu neex ay ay ancien arbitre ay ancien mbër di ko arbitrer parce que. làmb non loolu du yoon. moo tax may la il faut ñu waxtaan. waxtaan mënta ñàkk. il faut CNG ak euh, arbitre yi ñu toog waxtaan ndax solution am. loolu laa lay yëg man nag. bàyyi leen di wax du jaañ kat nangam du jaañ changé wul de dëgg rek lay wax. kay kay nee nañ léegi waxatoo dara. non non man dëgg rek lay wax man dama jógoon bëgg CNG respecté li ko fal. dañ naan CNG danaan wax naan Alioune Sarr danaan wax naan ministre moo ma fal moom laay rendre compte te loolu amul benn këyit bu ko wane. ministre dafa def arrêté. ministériel. Mhm. wax ay conditions yu CNG war a doxee. Mhm. man si conditions yooyu laa doon wax. wala déet condition yooyu laa leen wax alin Sarr defal li la seen li la texte yi wax maanaam arrêté bi la fal respecté ko. maanaam boobu sa xel dafa lëntoon ci ci fi ñuy dugg fi ñuy dugal. xaalis amul lënt lëntul sama xel da lii lañ la wax ne def ko def ko parce que boo ko defee kenn du nga. Hmm. kenn wax trian kenn du lu bon. mais bu dee da nga defal affaire bi si biir néeg bu lëndëm tëj bunt yi gars yi xamuñu li si biir mais lu nekk dañ la ko waxal. Hmm. mais tey. boo toogee réunion ñu ubbil la dossier wax la li ñu am li ñu def li ñu nangam amul kenn kuy contexté hmm. la ñu si moom. loolu am na solo. léegi yow tamit comme arbitre yaa ngi kaas yow gis nañ la nga kaas ngay kaas benn affaire muy MMA bi lan moo lan moo la metti ci MMA. MMA bi suñu cosaan te yéen sax seen patron gis naa muy def ay émission yow defoo ko moom muy jël ay émission pour lancer MMA. waaw MMA day yàq réew. du sport bu yiw. day yàq réew waaw. MMA. MMA. sport vi euh, sport la boo xam ne. dafa dafa sauvage. dafa dafa am violent. mooy sport bi nga xam ne tey boo ko tegee sa télé il faut nga def si moins de dix-huit ans. amee mais eh, bu fekkee da nga suñu cosaan rek football est suñu cosaan la te ñu ngi ko def. football bokkul football yow mun nga football man mun naa football adduna bi yëpp mun nañ football amul violence li am violence mooy sport bi suñu sport ñu làmb lañu am mooy suñu sport national dañu war a jàppale làmb avancé moo gën ñu jël yeneen sport bu ko rey bu rey suñu làmb. kon yow da eh, gis ni moom day daf bokk ci li. làmb loolu kay leer na. pourtant ñoom mbër yi nga xamante ne ñoo koy pratiquer instant bi ku mel ne Reug Reug Bombardier contraire bi lañu gis. que ni ñoom non ñoom. Hmm. seet xaalis bi lañuy ñuy seet pourtant ñoom xaalis bi ñuy bañ fii souvent moom la ñuy nangu fële. ne fee amul sëriñ. amul lii amul frais amul nangam. mais xaalis bi benn la ñoom kay ñoo nangu jël xaalis bële parce que amuñu frais duñ fay sëriñ duñ fay dara or que xaalis bi di nga am ngemb. di nga fay sëriñ loolu dong la. est-ce xaalis bi ëppul sax. déedéet ëppul noonu ëppul dañuy wax rek. xaalisu réew que ëppul bëri. xaalisu réew am na ko maa xam xaalisu réew mi leen ëpp ñu am si xaalisu réew mi duñ ko am foofu du question xaalis. tamit da nga am beneen expérience. def beneen ma ne amu fi. expérience ma ne expérience lu bon kese la. ma ne expérience expérience loolu mooy expérience. ooy mooy ñu jàmm mooy Lamine. déedéet ànduma si. àndoo ci tey àndoo ci suba. suba ak gannaaw suba ba may dee. léegi lan lan yow léegi ban taxawaay nga ci am yow. ñun daal taxawaay bi si am mooy li ñuy wax nii. pour mu jógee ci autorité yi xam ko réew mi xam ko ñëpp xam ne ñii kenn waru leen jox licence kenn waru leen jox dara pour ñuy organiser lu bon loolu lu bon loolu nañ ko yóbbu seen i réew. Ah, bàyyi ñu am bi am Sénégal moo neexul. warul am Sénégal. pourtant am nañ suñu làmbu bopp. nañ ko doxal. pourtant ministre bi eh. moo leen ko nangul. déedéet ministre bi nangu ki leen jox ki leen jox CNG sax si boppam moo ko war woon nangu. voilà parce que moom lañu dénk làmb CNG du nangu mais yëgul tinul. kii ko xam nañ ko. kan la. xam nañ ko jarul wax tur. xam nañ ko wax xam nañu ki leen may pour ñu organiser ko fi xam nañ ko. xam nga réew mi réew mi moom. waaw état du seetaan ñu ko def xam na ne war dootu ko defati de. ki ko def dootu ko defati. kon MMA yow dootul am ci réew mi. mu ah xalaatuma ko de ñaanuma ko yàlla de. non yow da nga ni ki ko def dootu ko. ki ko def dootu ko defati. moo tax man ñun xam nañ ko xam nañ liñ ko jox xam nañ liñ def ba mu organisé xam nañ lépp. ay ñeneen la am na ñoo xam ne sax am na koo xam ne dafa jege président de la république. Hmm. sono di organiser yor société am ne day def communication. kooku jege président de la république sax xam nañ ko. xam nañ ñoom ñëpp xam nañ seen lobin bi ñu def yëpp. ba affaire bi am xam nañ ñëpp. kon bi fi amoon lobby la. lobby bu mag la parce que dañoo jël ay nit jox leen xaalis ñu defar affaire bi ñenn ñi jege nañ président de la république ñenn ñi eh, ñu ngi ministère de sports fexe mbir mi am ñoo ñëpp nag xam nañ leen bés bu si nit waxee moo tudd sa tur tudd sa sant xamal ne lii jox nañ la ko woon jox nañ la nangam pour nga def nangam. sport bi moo la neexul wala ñooñu. nga amal sport bi neexul sénégalais yi sport bi sport bu sénégalais. sport bi kese moo la ci neexul wala ñooñu da nga am ñoom sport bi dama ne la sport bi du sport sénégalais sport su ko suñu sport national ba muy ñëw di yàq suñu réew. ba pare ay tubaab ñu nekk fi suñu société am fi ay liggéey jël suñu impôt ñu fay la ko doo sponsoriser làmb yi dem di sponsoriser làmb jooju parce que ñoom ay tubaab lañu comme ñoom loolu tamit dafa war a dagg. amoon nañ amoon nañ ay sponsor fii ci réew. waaw. sponsor yu mag sponsorisé nañ te loolu du yoon. te ñoom du ñu sponsorisé ñoom bu jël suñu xaalis di ko jox tubaab ak tubaab loolu rafet na. di delloo battu ci ndaal. ah dañoo delloo battu ci ndaal. waaw loolu du yoon. yow yaa ngi am liggéeyu dëkk ñu jox la fa liggéey ni ñu la joxee liggéey noonu nga war a jël yenn yi delloo ko si waa dëkk ba mais ñu jox la liggéey nga jël liggéey bi di ko lekk bàyyi waa dëkk ba loolu la tubaab yi def. Hmm. te loolu dañ ko war a xeex. kon duñ ko seetaan ñoom. yàlla tere mosuma ko seetaan. combat bu mosuma ko seetaan. <laughs> combat Bombardier bi seetaanoo ko. wallaahi seetaanu ma. bu Reug Reug bi nag. seetaanu ma. pourtant na combat de trois. du ma ko seetaan. du <laughs> tax soobee yàlla incha allah ko seetaan. lan mooy sa taxawaay pour mu bañ a amati da ngay dem gis. président amul taxawaay ñun lu ñuy wax wax nañ ko rek. président aussi xam na ne sénégalais ñoo moom réew mi moom tubaab bi moomuñu réew mi. ñun ñun <laughs> ñoo ko moom. ah ñoo moom suñu réew il faut président bi xam. dëggul yow sport bi laa bëgg a xam moo la neexul. wala ñooñu da nga am règlement de compte boo war a sport bi neexul sport dafa baaxul suñu réew. ñun ay sénégal lañ am nañ suñu sport national comme ni Niger amee sport national ba bañ ko fa yaa ngi dégg ni euh, euh, euh, yeneen dëkk yi bañee sport boobu ñun noonu lañ ko war a bañee. pourtant am na dëkk yu ko bañoon te instant ñu ngi koy nangu. ban dëkk la France daf ko bañ. France nanguwu ko ku la ko wax waxul dëkk am naa information bi sànq. am amul ba léegi ñoom ñi ñi ñoom sénégalais yi leen di jàppale ñooy wër naan France nangu na nanguwul dara France nanguwu ko association sport yu nekk France yëpp ñoo daje ne lii bugguñu ko day yàq suñu sport bu fa amee boxe dootul day dee karaté day dee léppay dee. est-ce que nekkul kon dafa gën a rëy. sport bu complet la parce que violent la dafa violent sport bu bon la moo tax français yi bañ ko ñëpp bañ ko. waaw looloo tax ñu bañ ko. kon yow da nga gis ni loolu dañ ko war a bañ ni ñuy bañee dorog. bañ yaay yaay moo raw dorog sax <laughs> loolu mun nga rey nit tànk yaa ngi xoj nit ki nit ki tànk dóorul loxoom rek bu dee koo xam ne ndeysaan borom jom la nga xot ko jëlul loxoom mun na dee loolu baaxul. neexu la. du question neexu ma dama ko buggul suñu réew. bëggoo ko parce que sport bu bon la. Bombardier jot na cee def ñaari combat seetaan nga yooyu. billaay bu ma ko laaj te Lamine seetaanu ma ko tey seetaanu ma ko suba. <laughs> tey waaye président yow bu ma ko laajee tamit ah man yooyu du ko seetaan. seetaanoo ci benn même bu rëg rëg bi am fii Dakar. du lan laa koy doy. da leen di yërëm wala. déedéet dama leen xool sax ba leen leen yërëm xaw ma loolu man du ma seetaan lu bon du ma wax lu bon. kon loolu mooy sa position ci ci ci ci MMA. waaw léegi làmb réew mi. keroog déglu naa la ci benn rajo. Mhm. ngay wax affaire roi des arènes. Mhm. ginnaaw Alioune Sarr bu mu génnee ni reconnaître roi des arènes. Mhm. yow nga ni Modou Lo mooy roi des arènes nañ ko ko nangul. waaw loolu wax naa yan nga ci mën a loolu wax naa ko président Alioune Sarr samedi ma ne ko Modou Lo mooy roi des arènes parce que Modou Lo keroog bi Tyson daanee màng màng dafa demoon jubilé ñëwaat. Tyson daan ko ñu ne Tyson roi des arènes Bombardier daan Tyson ñu ne ko roi des arènes Yékini daan ko ñu ne roi des arènes Balla daan ko ñu ne roi kon kay Modou Lo mooy roi. Hmm. waaw. kon des arènes ku ko bañ mooy roi ku ko nangu mooy roi. Hmm. waaw. ku daan roi daal. yaay roi moo daan roi. Eumeu Sène moo doon roi Modou Lo ko daan. Hmm. loolu am na solo. Ah. loolu loolu am na solo. man ni ma doon ko défendre nii. Hmm. noonu laa ko mos a défendre bi Eumeu Sène nekkee roi it ñu ñi naan dañoo bañ ma ne leen Eumeu Sène mooy roi. Hmm. bi ko Balla Gaye yore tamit dama doon wax Balla Gaye mooy roi. bi ko Bombardier yore damay wax Bombardier mooy roi. bi ko Yékini yore tamit dama doon wax Yékini mooy roi. bi ko Tyson yore dama nangoon ne Tyson mooy roi. loolu am na solo président. loolu noonu sa ñu sargal la fële ca Thiès dimanche passé. Mhm. ak waa ENA ko waa jàppoo. Mhm. gis naa seen première face à face bi sax teew woon nga ko. Mhm. lan nga seq ak ñoom. ENA ko waa ku leen xam-xam ne ay amateur làmb lañu. commerçant yëpp dañuy seetaan làmb tailleur yi dañuy seetaan làmb. ENA nag iti caam suma mag la sama xarit la conseiller am laa si ENA donc bés bi tey waa Thiès organiser ko tuddee ko drapeau bi di feet seen 30 ans dinaa ko waa Thiès ñoo organiser drapeau bi ñoom ñëpp xam nañ ne ñooy organiser maalaw door léegi nag ma ñëw sa làmb ja yëguma si woon dara. surprise la ko ñu wooma ñu ne ma dañ lay décorer. Mm-hmm. décoration bi nag du man maa ko moom amateuru làmb yi yee ko moom. képp ku bokk ci làmb yaa ko moom képp ku bëgg làmb rek bokk nga si dérégation bokk nga si décoration ñoom tamit ma leen di ñaanal di leen félicité vraiment defal nit te yëgaloo ko mhm. mbetteel laa si amoon yàlla na leen ñun tam yàlla nañ jig jig mboolem jullit jig mboolem mbindeef jig mboolem sportif mhm. waaw man daal mhm. kontaan naa trop kontaan nga sargal bi ñu ma sargal. ci sargal bi sargal bi nag amateur yee ko moom. ak mm-hmm. yow mii Lamine. Mm-hmm. képp kuy amateur làmb yaa moom loolu. macha allah am na solo. waaw waaw maa ngi lay ñaanal di ñaanal euh, site bi. Mm-hmm. Mm, di la ñaanal yow tamit yaa ngi liggéey liggéey bu am solo. di ñaanal Sénégal yàlla wàccee fi jàmm. di ñaanal président de la République Macky Sall yàlla may ko jàmm may ko réew mi ak gouvernement am di ñaanal opposition bi aussi yàlla may leen jàmm di ñaanal police di leen gën a félicité di di leen gën a encouragé gis nañ liggéey bu rafet bi ñuy def heure bu làmb amee di gërëm it gendarmerie gis nañu liggéey bu ñuy def heure bu làmb amee ñoom tamit amuñu seen pay ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm mbokk press bi yëpp képp koo xam ne yaa ngi ci presse gërëm nañ la sant na gis nañ ñi ngay jàppale làmp pour làmp avancé waaw. jërëjëf jërëjëf Lamine.